jéggee ñi ñi ñuy tuddee tey non euh, xam nga pouvoir bi du moom mooy écarté wala moom mooy autorisé Sénégal c'est un pays de droit c'est un pays réglementé yoon am na lu mu wax ci mbirum candidature président képp koo xam ni remplir nga ces conditions légales mais dara mënu laa tee doon candidat mais ku ko remplir nag évidemment kenn terewu laa doon candidat mais yoon moo dàq sa candidature loolu aussi leeral ko am na ci solo. waaw mais ku ci mel loolu la yaa ko wax man awma ci preuve yu ma gis en tout cas ci li ma dégg ci li ñu rapporté ci situation xalifa Sall d' abord ñëpp wax nañu ni kenn yéenewu ko ko parce que c' est un Sénégalais comme tout le monde c' un maire. kilifa la mais nag kilifa aussi yoon bu ko dabee dañuy bàyyi yoon def liggéeyam man personnellement li ma xaw a gêné ci situation bu xalifa euh, Sall mooy facture yi ñu ko reproché maanaam jënd naa nangam te jëndoo ko livré naa nangam te livré woo ko loolu yëpp nga wax ko pour justifier des dépenses c'est ça qui est un pour quelque boo xam ni war ngaa mën a nekk un candidat aux élections présidentielles loolu waroon na bi mu ñëwee ci maire bi mu fekk pratique boobu donte ñam fa fekk noonu lañ doon doxalee moom war naa xam ni doxalin bii teguwut ci yoon mu càmbarlu ko wala mu santaane ñu def beneen yoon li beneen procédure boo xam ni moo gën a aw yoon mais lo d'ailleurs toog na fa lu mat six yoo xam ni ci ni ñu waxee utiliser wul fonds yooyu kon ça veut amoon na xel yaar amoon na dut ci lii ni koy doxalee dese naa leer. Euh, barki Dembo Ndiaye am benn xale étudiant bu tudd Sëñ Fallou Sène bu ñu boom ci université Gaston Berger yéen ñi dëkk Thiès gis ngeen la ci Idriss Seck. wax lépp dem waaw dañuy jaale d' abord euh, famille yu Serigne Fallou seen moom nga xam ni euh, yàlla moom na ko ci événement yooyu mu nekk loo xam ni ñëpp ko naqarlu à commencer par le président de la république euh, amul benn njiit bu yéene ñuy faat say citoyen amul te dama jàpp ni événement yu mel noonu. dafa war doon occasion pour que l'ensemble des Sénégalais se retrouvent autour du Sénégal bañ a seet ay intérêt politique personnel mais ñu xam ni lii mbirum Sénégal la ñu bokk ko naqarlu ko jooy ko jéem a indi sax ay saafara pourquoi pas man bokk naa ci ñi gëm ni am na événement yoo xam ni war nañoo boole ñun tous les hommes politiques autour vraiment d'un idéal ñu fàtte suñu bopp ngir Sénégal loolu pour man lu ci am solo la man naqarul naa trop wax dëgg yàlla Idrissa Seck maa ngi koy euh, maa ngi wax turam euh, man ku ma fonk la ku ma respecté la respecté naa ko jox naa ko cër maa ngi koy déglu vraiment euh, waxam man na attirer attention mais jàpp naa ni bii yoon wax dëgg yàlla il est un peu allé loin mënoon na def critique am ni mu ko bëggee en tant qu'opposant mais bañ a profiter de cette situation vraiment et puis li xew nii lan lañ ci mën a imputer responsabilité au président de la république loolu aussi lu lu lu lu jar a seet la euh, le président a bon dos nag lu xew rek ñu ne mooma lu xew rek ñu ne mooma lu ñu war a def te defuñ ko rek ñu ne mooma bon peut-être c'est normal mais yu mel nii nga xam ni faat bakkan def ciy am. su ma sañoon homme politique bu ciy wax rek nga wax ci loo xam ni vraiment euh, nit ñi dañ la gën a wekk dañ laa jox cër surtout rawatina koo xam ni da bëgg a jiite Sénégal ku bëgg a jiite Sénégal di jël force les forces de sécurité di am ay baat yooyu teg ci ñoom. te mu wóor la ni ëllëg bu la yàlla joxoon réew mi ci ñooñu nga yaakaar pour yor réew mi loolu aussi lu jar a seetaat la. en tout cas man euh, rafetlu ma waxam jooju euh, am na ay waxam yeneen yu bëri yoo xam dinaa ko rafetlu mais bi bii moom bokk ci ay ay liggéey. waay hmm. ñu dàq recteuru université ki nga moom mooy directeur course nga moom mooy gorom di Ibrahima directeur course. waaw terme dàq bi sax peut-être c'est un peu péjoratif xam nga président mooy nommé aux fonctions civiles et militaires maanaam dalay xool. Euh, say compétence doy ko mu am yaakaar ci yow mu xalaat ni bu la jëlee dénk la responsabilité bi di nga ko doxale ni mu waree mu jël décret nommé la foofu bu demee ba amu ci satisfaction la mu doon séentu gisu ko ci yow wala def nga erreur boo xam ni jàpp na ne waratoo faa nekkat yi dafay jaadu mu jël la fa indi keneen loolu constitution moom moo ko may loolu waaw waaw mais d' accord. ministre des finances mais euh, déggoo xam nga prési président président de la République non seulement il a réagi avec promptitude mais il a eu l'attitude qu'il faut moom ak gouvernement bi naqarlu na li xew jaale na euh, mbokk yi ki fi jóge jël na ay mesures yoo xam dañu war def enquête administrative. pour xool vraiment càmbar affaire fayu bourse yi naka lañ koy doxale càmbar boobu càmbar boobu bu amee peut-être à ce niveau dina am responsabilité yi ñu situé mais yemul foofu yoon également dugal na ci loxoom le procureur de Saint-Louis s'est autosaisi def nañ enquête def naa dossier bi évolué na mais nag comme force de sécurité la considéré la la concerné pardon euh, évidemment il faut ñu respecter la réglementation li mu wax li ñu war a jàpp mooy Euh, bu ñu leeralee mbir mi ba mu leer ba ñu situer responsabilité bu boobaa ki nga xam ne nag mooy dénkaane responsabilité yooyu moom mooy assumer ay responsabilités am xam li muy def man noonu laa ko gisee wax dëgg yàlla. mais est-ce que responsabilité yi maanaam rëq ndigg yi foofu waroon a yem maanaam sànq dina am yeneen tët yoo xamante ni mën ngeen euh, pas travestir aussi ces ces idées déglu naa ko Mame mbay dafa ni am nay enquêtes yoo xam ne ñu ngi koy def. bu enquête yooyu aboutiré bu laajee ñu jëlaat yeneen sanction dinañ ko jël. loolu laa dégg ci li mu wax. mais est-ce que euh, proche. non mais xam nga buur buur géwél ah tous les Sénégalais son proches du président de la République euh, sa famille comme la famille des autres aussi parce que keneen ku mu jël famille yu keneen la mais dafa gis compétence ca kooko kon bu gisee compétence ci famille am jël ko loolu ah wàññiw daal xam nga li ñu war a li ñu war a ŋàññ nga jox responsabilité koo xam ni yellawu ko amul compétence bi mënu koo yor nga jox ko ko pour mu ko yor loolu de war nañ ko mën a ŋàññ mais nga seet kenn ku mën a doon mu am critère de compétence yoo xam ne mën na koo permettre responsabilité bi nga ko jox mu doxal ko nga jox ko ko loolu pour man lu ñaaw nekku ci. Mm. am beneen actualité fi am mooy le cas euh, naa lieutenant Dièye ku ne xam na ni euh, ginnaaw bi colonel Ndao génnee livre boobu gis nañ ci ko ci mel ni tey ñu gis beneen way takk der bu jugati moom tamit di ŋàññ nguur gi bay woo ay frères d'armes euh, pour ñu bañ ko abandonné wala xëj na ñu jug jàkkaarloo nguur. waaw xam nga euh, liggéeyu ci état yoon def ko leeral def ko tëral euh, man mii di wax ak yow au fonctionnaire la ci sama wàllu liggéey yoon am na loo xam ni mayuma ma wax ci. te awma ci ndigalu samay supérieur loolu lu ama ko wax soldaar yi am nañu léegi euh, possibilité dem voter mais yoon mayagu leen ñu nekk ay acteurs politiques nit nag boo nekkee dans un corps da ngay respecter les lois et les règlements yi nga xam ni moo régir sa corps boo bëggee def leneen lu wuuteeg la nga xam moom la yoon maye dangay génn ci corps bi comme ni eh, Ibrahima Dame dem euh, euh, le magistrat comme ni mu def. xam nga dafa démissionné de la magistrature. mais démissionné non dama lay expliquer rek dugg ci langue politique bi kooku am na ci droit waaw mais keneen ki nga xam ni euh, vraiment yoon mayu nga def activité politique nga bëgg koo def loolu aussi lu luñ jar a seetaat la. ah waaw mais bu bëggee démissionné xam nga aussi euh, euh, armée dafa am lu ñuy démissionné dafa am lu yoon may ak lu mayewul. parce que nag c'est un corps d'élite la boo xam ni am nañu information yu stratégique yu am solo yoo xam ni évidemment euh, seeni jaxasoo ak société bi dañ ko réglementé loolu aussi lu lu lu normal la. Pascal ak Thiès ku ne xam ne ni Thiès tendance bi bari na euh, bien vrai que da bañ ñuy employer le mot tendance mais tendance am na au niveau des responsables de Thiès waaye bi ci gën a vif mooy diggante Siradia ak Babacar Pascal Ndiaye. te Bour waaye xam nga ni sama diggante ak Siré Dia wax dëgg yàlla euh, amul benn tendance bu ci am Siré sama mag la sama xarit la sol naa sama daal dem seeti ko bureau avant tout ça d'ailleurs man bi ma ñëwee ci langue politique bi à Thiès ginnaaw bi ma ci amee ndigalu président de la république waxtaan ci ak moom ba mu jox ma ci ndigal ne ma d'accord naa nga jàppale ma Thiès li ma njëkk a def mooy dem seeti les responsables de l'APR à Thiès waxtaan ak ñoom wax leen li ma tax a jóg la ma waxoon rek sama jeune frère El Hadj Omar Youm à Thiadiaye euh, bi may dugg ci euh, langu président de la république euh, mu seet si ma ak mbooloo bu yaatu wax dëgg yàlla ñu waxtaan waxtaan bu am solo ma ne ko monsieur directeur de cabinet je ne suis pas un je suis un complément la ma wax Thiadiaye c'est valable à Thiès ñëwuma Thiès pour xeex benn post de responsabilité ñëwuma cees pour xëccoo un poste de responsabilité ak waa Thiès damaa ñëw pour dolli la fa Macky Sall am moo tax sa mouvement day tudd mouvement dollil Macky. sama diggante ab Abdou sama rakk la on s'appelle régulièrement on se fréquente man awma benn ma yàlla ak benn responsable APR à Thiès ma wax la ko boog mu leer. man dox ma ci doxu tendance man je me range derrière eux parce que damaa ñëw fekk leen ci terrain bi ñuy liggéey nit ki nag boo ñëwee fekki ko si ci toolam eh, fa mu bëgg nga béy foofa ngay béy. fa mu bëggul nga béy doo fa béy man noonu laa ko gisee ah vraiment et j'ai pas de j'ai pas problème pour pour nangu loolu. mais ba tey Idriss Seck euh, reste tu parlais de tendance je crois que la grande tendance mooy loolu. entre l'opposition et le pouvoir à Thiès xëccoo bi foofu la xëccoo Thiès te nag le combat de Thiès aura lieu comme ni ko ñëpp waxee bon Idrissa c'est vrai il faut aussi reconnaître la vérité Idrissa euh, amoon na doole Thiès ça personne ne peut le contester parce que élection yi fukki at yi passé yépp moo ko doon raflé loolu kenn mënu ko weddi parce que tout simplement bi mu nekkee ci régime bi bi mu nekkee ci nguur gi en tant que premier ministre ay projet yu état def nañ ko Thiès. ñëpp jàpp ni moom moo nekk à l'origine moo indi investissement yooyu à Thiès loolu sax mën nañ koo nangu mais nag jamono aussi day dox te ni jamono di doxee noonu la politique di doxee parce que ça fait plus de dix ans Idrissa nekkatul ci pouvoir bi la mu mënaloon Thiès en tant qu'homme du pouvoir mënalatu ko Thiès te am na ñeneen ñu mënal Thiès loolu kon dafay jaadu aussi waa Thiès jaxasoo ak ñi nga xam ni ñoo mënal Thiès dara. pour que Thiès mën a continuer di jëm kanam loolu moo tax ñu ñu jàppale président Macky Sall pour que Thiès waaye gën koo nangu xam ni ku nangoo investir la à te loolu wax dëgg yàlla résultat wu liggéeyam à fës na feeñ na bu njëkk dañ ko doon bañ mais ñëpp nangu ñëpp nangu nañ ko léegi premier ministre bi mu fa ñëwee ça fait même pas un mois. Eh, wax naa lañ fa lañ fa lañ fa investir donc le bilan du président Macky Sall à Thiès vraiment c'est un bilan respectable un bilan honorable bilan boo xam ne war naa tax nag Thiessois et je profite de ton micro pour lancer un appel aux Thiessois di leen wax ni nañu jàppale président Macky Sall pour mu am un deuxième mandat projet yi nga xam ni naal na ko mën ko yeggale ak jàmm bu ko defee ñu soo a jox keneen. jàpp ngeen ni ba tey dolli Macky lay doon wala est-ce que doon dolli Macky Talla day ñëw sama mouvement dollil Macky mais <laughs> Talla dafa ñëw dans le camp présidentiel rafetu naa li mu def parce que dafa ni je renonce à ma candidature et je soutiens la candidature du président Macky Sall loolu aussi euh, euh, c'est un homme de grandeur moo man loolu li nga bëgg nga bàyyi ko parce que am na keneen ku ko bëgg nga jàpp ni kooku moo la ko gën a man loolu vraiment nit ku nit ku mat nit moo ko man ñu ci bëri euh, dañuy boof ci seen égo defe nii ils sont le centre du monde du ñu xam lañ mën ak lañ mënul mais moom reconnaître na ni lii ñu jëm nii man a maanaam war a fal président de la république jàpp na ni euh, Macky Sall doon candidat moo gën que moom wala keneen doon candidat moo tax mu bàyyi candidature am ñëw jàppale ko ma koy remercier di sama xarit si la di ko féliciter euh, di ko ubbil euh, buntu coalition benn Bokk Yaakaar euh, la mu am Thiès mu boole koog li coalition bi am ñu liggéey ngir Macky Sall mën a gagner à te gagner à Thiès boobu ñuy wax xam nga département bi gagné nañ ko te mosul am c'est la première fois coalition Benno Bokk Yaakaar gagné les élections législatives dans le département de Thiès te loolu liggéey la bu nit ñi def liggéey boobu ñu def nag su la houlette du docteur Augustin Tine ministre des forces armées maire de Fandène que je salue au passage moom liggéey boobu moo tax ñu réussir loolu